parce que détracteurs yi xam nga fan yi nag waa Benno Bokk Yaakaar dañ la xaw a may jàmm mais euh, fan yële moom waa dañ la xaw a may jàmm fan yi fan ñoom dañ ak ñu laa fan waa Benno <laughs> dañ laa fan actuellement xam naa ne moom boo doon dem élection Benno sax yow la ñuy votel mais <laughs> mais fan yële euh, weer yële avant crise bi di ñëw yeewi askan bi euh, dañ doon wax naan Barthélemy bi ñu ko falee maire ba tey liggéeyul dara Euh, il fait dans la dans le populisme euh, di jël ay bourse euh, di jënd ay ticket di voilà di jël xaalis bi di ko pasar pasare mais amul benn projet structurant boo xam ne teg na ko pour asseoir vision ak projet bu mu bu mu bu mu doon jaay waa waa waa waa Dakar yi. mais wolof Njaay nee na gémmiñ buy nàcc du wax mukk jàmm. <laughs> ñoom xam naa jamono yooyu moom xam naa coup de peigne ñoo xawoon dëgër rek no mais en fait c'est de bonne guerre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est de bonne guerre ñun lu président Macky Sall di liggéey ci dëkk bi parce que bon ñun ànduñu ak moom mais nag nangul nañ ko am na lu mu fi liggéey parce que kenn du gis TER ne du liggéey te waa Banque may dégg kenn du gis BRT moo tax tamit may sàkku tamit. Euh, les jeunes les jeunes xam leen lu lan ngeen di xeex. Barthélémy da ngay jàkkaarloo caméra bi nga wax ak ñoom parce que le message venant de toi il est important dama ne dama bëgg wax ci leer BRT bi ngeen gis nii lu alalu Macky Sall seen alal la te Sénégal dafa dem jële ay bor laa wax ay bor pour liggéey lii xeex su jotee di ngeen xam ban heure la jot dañ leen ko wax dama ne te xeex su su jotee xam ne ñu ñuy xeex te buñ ci kenn xeeb te buñ ci kenn yépp mais nan ngeen di xeexee may Maymuna euh, ñun loolu. non da nga nekk di wax ak jeunes parce que boo leen waxee xeex bu jotee. Maymuna da ngay brouiller message Maymuna dama lay laaj. Dakar yàgg nañ xeex wala yàgguñu xeex dama lay laaj. yàgg nañ xeex voilà. kon su jotee dinañ xeexaat te maa ngi ñaan yàlla loolu bu mu amati Sénégal. mais combat politique démocratique dafa am. oui mais on essaie de. et les jeunes à un combat politique démocratique. mais Maïmouna vous savez quand la rue prend ses droits les gens se battent avec ce mais je veux qu'on se comprenne dafa am lu ngeen xam ne ni dafa jekkul ci Sénégal par le BRT da ngeen foog ni euh, Sénégal le Sénégal a contracté des prêts pour faire le BRT su ngeen yàqee le BRT on est obligé de payer la dette c'est-à-dire qu'on va recontracter une autre dette pour le faire vous croyez que ce sera l'impôt de qui ce sera l'impôt de vos parents réfléchissez un peu tout de même maintenant vous pensez franchement qu'on a besoin de bousiller le BRT pour faire partir Macky Sall le moment on sait ce qu'on te ñaan nañ yàlla bañ ci egg te am naa yaakaar duñ ci egg parce que man ce que je vois c'est que je vois une personne avec qui on peut parler mën naa nag juum mais je te dis je le répète ici gis naa nit bu nga xam ne nii il comprend la gravité de l'heure te amaana am naa yaakaar mën nañ juboo mais que les gens nous fassent confiance tout de même c'est quoi ces histoires là dans ce pays personne n'est plus patriote que nous amul c'est faux personne n'est plus citoyen que nous y en a pas c'est faux te dama ne wolof Ndiaye nee na saabu du fóot boppam ce pays-là on a tout fait on n'a rien à prouver. mais vous dénoncez. on a de leçons à recevoir de personne surtout pas les derniers arrivés respectez les gens et faites confiance au temps et ayez confiance en Dieu yàlla fi nekk yàlla daf ñu teg lu ngeen xam ne ni dañ ko nangu di ci ànd ak diine di ci ànd ak gëm yàlla te incha allah yàlla dinañ yàlla dinañ dinañu dinañu ko teggil. parce que Dieu n'est pas injuste yàlla soxorul yàlla mooy teg doomu aadama nattu pour mën ko teste xool leen xalifa Sall lu ko yàlla teg xool leen lu ko yàlla teg depuis cinq ans deux ans et demi de prison muy ànd ak yàlla di muñ te ba tey bokkul respecter les